ñu ngi leen di jaajëfal mbokk internet yi ci ànd bi gën a lañ di leen dalal jàmm ci seen ëttu xibaar ñu ñëw ak yéen ci li gën a fës ci euh, yi euh, mu mel ni rek ab euh, phénomène bu bees tàmbali na rek di dox ci établissement scolaire yi ñu tuddee ko rek flash cas ou l'école en mœurs légères depuis la révélation du jour affaire Iba Thiam ki nga xamante ne moom mooy maître Ciré Clédor Ly yéen a yàbbi ci wàllu woowu la moom xam ne rek moom moo li ñi ñi nga xam ne dañ leen tegal di loxo ci mbir moomu ñu leen di dippee les mises en cause ay xamante ni rek euh, daanaka euh, comprendre luñ lu bëri li tax mu wax loolu ak ban contexte la nag ci faram-fàcce xibaar yi lay doon dañuy dikk ak yéen itam ci biir coronavirus fii ci réewum euh, Sénégal mu mel ni rek tey ci alxames bi Sénégal am na lu yem ak téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar. cas euh, positif euh, mu doon nag euh, juróom fukk ak ñeent cas contact si ñaari cas importé ak téeméer ak benn cas communautaire. dina ñëw itam ci révélation yi nga xamante ne ni moom la Ahmed Khalifa Niass daal di def rek ci plateau Femme Fatih bu télévision média ginnaaw bi nga xamante ne jàkkaarloo na ak Pape Ngagne Ndiaye la mu wax rek moom mooy di Serigne Saliou Mbacké ak Serigne Abdou Khadir ñoom ñaar ku ci nekk rek jéem nañu leen woon faagaagal lu yemook ñetti yoon. mbokk internet yi pàcc gën a fës ñu ngi noonu ñëw ak yéen nag faram-fàcce comme ni ñu ko waxee woon nag ca ndoxte la dañ koy tàmbalee nag ak euh, phénomène bu bees bi léegi nga xamante ne saytu nañ ko ci euh, école yi te mooy rek la ñu euh, dippee flash cas ou l' école en marche légère bu ñu sukkandikoo nag ci yëglekaay bi la di l' observateur bi nga xamante ne moom moo joxe xibaar bi ay compte Instagram la ñuy créer rek ngir rekk mën a partager ay vidéo wala bokk image obscène ci yenn ci yi nga xamante ne nii jot nañ cee def ay ñaawteef. dem nañu sax nag euh, ba le corps professoral ak administration école yi sax euh, kenn mujj leen euh, épargne ñu fàtte rek ne moo FLAJCA li ci bëri rek dafay accompagner ak non établissement wala école bi nga xamante ne ni fa la amee maanaam dañuy rek bind FLAJCA Limamoulaye FLAJCA Saint-Michel wala FLAJCA les académiciens ak yeneen nag école yi nga xamante ne ni jot nañu ko di def ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo tàmbali di def compte FLAJCA yooyu nag mu mel ni dañoo inspiré wu ci série bu nga xam xamante ne ni euh, Marodi TV ñoom ñoo ko rek euh, produire après deux épisodes de série euh, Virginie boobu li nga xamante ne ni tudd ci wàllu flash cas lycéen du Sénégal yi nag daal di rek retranscrire loolu ci dans la vie réelle ba tax na sax nag jamono ji bëri na loolu ay nit yoo xamante ne nii elles sont victimes de ces flash cas mu bëri nag ay ay internet yu bëri yoo xamante ne nii rafetlu wuñu mbir moomu ba tax na nag ab page bu dippee lutte contre l'indiscipline de Sénégalais daal di rek jóg jàkkaarloo nga xamante ni moom moo di Marodi TV tey gën rek ñaax wayjur yi ñu am un peu plus de vigilance ci seeni euh, doom ñu fàttali rek ne ci période mbas mi ñu nekk ak confinement bi nga xamante ne ni amoon nañu fi yenn ci ay euh, élèves euh, bëri na woon lool ñu ci def ay vidéo pour adultes di ko partager ci yenn réseaux sociaux yi sans oublier itam tontine sexuelle yi nga xamante ne ni doon nañu ko def ci groupe yi ci tënk nag daag mën nañu jàpp ne phénomène bi la di flash kaala ka a jóg rek moom mooy lijjanti motiver élèves yi waaye itam di viser ay nit pour ay règlement de compte wax nañu ko sànq dinañ ñëw itam ci la ñu dippee révélation du jour ñeel wàllu affaire Iba Thiam ki nga xamante ne tegandi loxo ci euh, affaire boobule di Maître Ciré Clédor Ly jàpp rek moom moo di euh, ñooñu nga xam ne ñoom lañ tegandi loxo te ñu dippee leen les mises en cause euh, ce que des enfants qui ne comprennent rien ci audience su affaire Dame Amar ak compagnie bi sax nag la leen di rek dugaloon ab demande de liberté euh, provisoire mu mel ni rek juge du tribunal correctionnel bi daal di koy rek euh, rejeté ndax nag dafa jàpp ni le délit de trouble à l'ordre public euh, ba tey jii nii dégagé guñu ko. avocat de la défense bi itam di wujutu euh, maître Ousmane Diagne la jàpp rek ne mooy xale yooyu war nañu am une liberté euh, provisoire ndax it nag topp ñu kenn jamono ji pour assassinat ci affaire boobule sax nag jot nañu euh, tëdd prison ci diiru ko juróom-ñeenti weer ci noonu sax la maître Ciré Clédor Ly daal di wax rek ne mise en cause yi ay xale leen dong yoo xamante ne ni daanaka xamuñu lu bari te sax nag duñ ko saytoo ba ca biir formalité article bu code naa respecté nañ ko te sax nag xale yooyu am nañu euh, déjà seenu punition moo tax rek ñu war leen rek euh, bàyyi ñu dellu seen kër maanaam ñu am ab demande ñu am ab liberté euh, provisoire ñu fàtte rek ni c'est la troisième fois que Dame daal di introduire rek une demande de liberté provisoire ñu daal di koy rek rejeté xibaar te itam bokk na ca la ca gën a fës révélation yi nga xamante ni kii di Ahmed Khalifa Niass def na ko ci plateau Fram Facce bu Télé média Médias daal di ci woon nag jàkkaarloo kii di Pape nga Ndiaye daanaka nag laata révélation yooyu ñu gis rek ne ñoom ñaar ñi na plateau ba jot nañu fa laalante ginnaaw bi nga xamante ni ki la di Ahmed Khalifa Niass dafa wax Pape Ngagne Ndiaye ne dafa doon euh, saraxu ngir rek mën a am euh, interview am ki la di Pape Ngagne daal di riposté daal di ko saraxu ko benn yoon fa mu jaar rek moom mooy ki nga xamante ne moom moo yor daal di koy rek euh, wax wala boog mu sollicité ko ne dafa bëgg ITV ak ki la di Ahmed xalifa ñas leeral yooyu daal la indi euh, ñu ñëw nag ci révélation yi nga xamante ne moom la def ci euh, au cours euh, de l'émission daal di wax rek kii kii di Serigne Saliou Mbacké ak Serigne Abdou Khadre ñoom ñaar ñëpp dañoo rëcc ci trois tentatives de meurtre Ahmed Khalifa Niass nag daal di ci indi ay eh, leeral yu mat sëkk daal di eh, wax ne naam ñaari sax eh, ñaari tentative de meurtre yu Serigne Saliou nit ñi yëg nañ ko waaye troisième bi gars yi yéeguñu ko daal di wax rek na mu demee daal di wax rek ne ginnaaw bi nga xam ne toog Serigne Saliou jóge na Touba daal di rek ñëw ci xel ko mu defoon rek ab piège ngir mën ko boom woon tamit teg ab lay daal di rek wax ne ab trafiquant lañu ko foogoon révélation yi nag mu ngi def ginnaaw Ndiaye laaj na ko euh, une question à savoir que ni ndax euh, kilifa diine yi euh, dañoo nekk en danger ci la waxaale sax nag ki nga xamante ne nii dafay tere ñu fi def ay njombe kooku nag il est en danger sax nag mu proposer pour à ce képp ku religieux fii ci réewum Sénégal këru diine yu mag yi ñu rek am li nga xamante ne moom moo di ay garde rapproché wala sax nag sécurité bu doy ngir mën leen a aar nga kam leen di nekk artiste rap fii ci réewum Sénégal itam def na ay révélation ci passage bi nga xamante xamante ne moom la defoon fële ca euh, prison euh, ci émission sama Sénégal nag la ko euh, defee nag ba mu nekkee fële ca prison dafa feebaroon woon na ci ay période yoo xamante ne nag dee la doon gis ndax it nag woon dara lu xew ci entourage am tey nag ci feebaram boobu mu jotoon ci def rek ñaari opération yoo xam ne daanaka dañoo échoué foofu itam mu ñàkkoon espoir ba sax nag bëggoon na dem daal di porte plainte pour négligence ci opération boobu cicatrice bi nga xamante moom la ca jëlee kañ defal césarienne sax xanaa euh, waru koo am sax nag jàngoro ji nga xamante ne moom la amee woon euh, nécessité wul woon benn yoon sax ñu koy defal euh, opération waaye analyse dong la aajo woon ñaaka bu leen eh, di wax bi loolu yëpp amee nag ci la magam jël initiative daal di ko yóbbu rek fële ca Paris ñoom ñoom rek mën a eh, saytu ana lan moo ko daal ak naka la ñuy def rek ba eh, faj ko ci lañu ko xamalee foofu ca Paris rek ne même si bu fekkee ne ñaari opération la Ngaaka Blindé daal di rek subir warul woon am cicatrice bi ni toll amoon rek nag di excès de calcium daanaka rek foofu ca Paris traité nañ ko ba mu rek mën a am jàmm yaramam daal di rek ñibbisiwaat fii ci réewum Sénégal ñu leen dikkaat itam ci xibaar yi communiqué 298 bi nga xamante ne kuréel gu ñu denk wàllu wér gu yaram ci euh, Sénégal jébbal nañu ko euh, alxames bi ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru euh, décembre mu mel nekk ci ñaari junni téeméer ak juróom-benn fukk test yi nga xamante ne moom la ñu amal téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar ñoo ci ñëwaat positif mu doon ab taux de positivité de 7,27 pour cent cas positif yooyu nag doon juróom fukk ak ñeent cas contact ñaari cas importé ñu enregistré Thiès ak téeméer ak benn cas communautaire wàññi nañu itam lu yemoo ko juróom-ñetti fukk ak juróom ci ay malade yoo xamante ne hospitalisé woon nañ leen mujj leen contrôle négatif daal leen bàyyi ñu dem ndax dañoo ametan ñaar fukk ak juróom-ñaar ñoo nekk fële ci Sowétas ni ki démb ci euh, àllarba bi nag ñetti bakkan ñoom ñoo root jàngoroy coronavirus ba fi mbas mi duggee ak léegi nag ñuy wàññu lu yemook fukki ju nekk juróom-ñett yu tekk ñaar téeméer ci ay nit yoo xamante ne ñoo jot a laale ak jàngoroy coronavirus ci ñoom nag fukki ju nekk juróom-benn ak juróom-ñaari téeméer ak ñeent fukk ñaar ñoo ci ametan ñetti téeméer ak ñetti fukk ak benn ñoo ci ñàkk seen bakkan ak it nag junni ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn ci ay nit yoo xamante ne ba tey ñoom ci loxoy docteur kuréel gu ñu nekk wàllu wér gu yaram di dolli ñaax askanu Sénégal ñu sàmmoon teg ndogal yi ngir ànd xeex coronavirus mbokk internet yi foofu la ñuy jaaxee daal ndar képp xibaar yi bëccëg bi cant ngërëm ñeen leen ci ànd bi gën ànd ñun di leen jox di daje beneen yoon jërë ngeen jëf.